ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen a jàmm ci xibaar yi yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak Les Échos gi duñu xamal ne euh, jamono ji kay mbirum Ousmane Sonko léegi tey mu leer yéene kaay gi duñu xamal ne maanaam daal Ousmane Sonko bu ngeen gisee ko yéene kaay nationale kay dafa am benn bataaxal boo xam ne koy jox ki nga xam ne rek moom moo di attakat bi bu ko defee rek mu daal ci sukkandiku ngir mën a woo ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko yéene kaay gi duñu xamal ne jamono ji nag la ci des nag bëreetul la tribune yéene kaay duñu xamal a leer ci mbirum la ñu dënmal maanaam ay mbiram leer naññ ci réewum Sénégal yéene kaay gi duñu xamal ne moo taxit kay jamono ji réewum Sénégal am xel ñaar la ñu nekk ci mbirum Ousmane Sonko ëllëgëm fan lay mujjee Vox Populi duñu xamal ne kay mu jëm moo neexul boo moytul ci réew mu tàkk lay doon yéene kaay gi duñu xamal ne député bii nga ne rek moom la ñuy wax Seydou moom mii nga xam ne rek maanaam daal farandoo njiitu réew mi Macky Sall yéene kaay gi duñu xamal ne ña ko def kay ay nit la ñoo xam ñoo xam ne seen xar kanam dañu koo muur dem taal kër député bii nga xam ne rek moom moo di Seydou Diouf maanaam daal kër gay tàkk di jax-jax yéene kaay gi duñu xamal ne fi nga xam ne rek moom moo di Ziguinchor ab sànc boo xam ne rek moo fa nekkoon foofa itam jot nañ koo taal yéene kaay gi duñu xam la réewum Sénégal kay jamono ji tolluwaay gi doy na waar ne rek a doy waar xam ne rek ñoo jëm ne moo taxit nga xam ne rek moom tegoon nañ leen loxo muy dàmbooj ak moo di Abdou Karim Gueye yéene gi duñu xamal ne loolee kay moo nga xam ne rek ñoo ànd ak ñoom di ñaaw libération libération yéene kaay dina xamal ne mbir ma kay doy na waar ndax boobaak léegi nañu ca jàpp daanaka daal toll nañ ci ñeent fukk juróom-ñaar ñii ay jàngalekat lañ ñii ay farandooy Ousmane Sonko nga xam ne rek ñoom ñoo na koo yëkkati moom kay doon na xam ne ne maanaam daal bu a jël ko mën a gisee lenn la gi duñu xamal ne kay daanaka mooy xeeñ ci réewum Sénégal yéene kaay gi di sursa Serigne Saliou El Hadji Bara kenn ci jabootuk El Bara gi juróom-ñaareelu xalif général moom kay dafay xam ne ne njiitu réew mi yow Macky Sall yow laay wax a jël si daal la muy sàkku ci ko def wala déet waaye farandoo yi nga xam ne rek ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñu leen di jàpp boobaak léegi nañu leen bàyyi laa wax teggi leen loxo mbir mi kay muy moom moo di kër Ousmane Sonko ngir ci yéen gi di Walf Fadjri moom kay kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko dafay xam ne ne Sénégal réew la moo xam ne daanaka kay wàllum démocratie dafay suufe lool maanaam daal la muy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall tamit lii nga xam ne rek bëgg na ko def bu fekkee ne ñetteelu mandat moo tax mu bëgg def lii na ko teggi teg ko ci suuf la laa wax yi na ko teggi na bàyyi li nga xam ne rek moom lay def yéenekaay bi duñu xamal xam ne rek ñoo ànd ak njiitu réew mi ne rek yëkkati nañ ko ñoom kay dañuy xam ne maanaam lii ñuy wax naan dañuy kompal xibaar bu doy waar benn policier ak benn gendarme boo xam ne teg nañ leen loxo yéenekaay gi duñu xam ñoom kay ay xibaar la doon jox yi nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko waaye am na ñaar ñoo xam ne jamono ji seeni mbir ñu koy yëddu maanaam daal xool tolluwaay gaak noom mel ba xam dañuy jox Ousmane Sonko ay xibaar wala déet kaay gi di l'observateur di ñu xamal loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko ne rek noonu lañ ko doxalee dafa mel ni dafa laj yéen kaay gi di ñu xamal ne maître Omar Youm ma nga xam ne rek bëggoon nañu koo seetaan aw ñoñam maanaam daal moom ñu koy ñàkk ña ca des ñu bàyyi leen yéen kaay gi di vox populi di ñu xamal ne mbër mi ñuy wax Bébé Saloum dañu koo jàpp ci mbirum faux billet mu nekk nag lu doy waar ak El